ñi ñoo ngi jël vraiment yaakaar na Sénégal rek la ndaw yi jug mais demal Mauritanie. mais mais mais Europe euh, Espagne pirogue yi fay egg si ñoom bu ñuy wax li ci ëpp Sénégal lay jógee la wax xam nga loolu lu ko waral. ndax lan ndax parce que Sénégal moo tax. non dafa jege dafa jege Espagne. Mhm. Mauritanie ngay jaar traversé moo tax tey li ëpp ci et puis pirogue yi dañ dem ba boor yooyu noonu bon dem fa du du du lu metti ci ñoom. Mhm. mais tey boo boo tax Sénégalais et li ci gën a garaaw da ngay gis ay ay ay ndaw jaar ci gaal gi dem ba ci foofu noonu filmé vidéo stram na waaw waaw ne sama gars yi ñoo ngi nii waa affaire bi hmm. benn problème fii affaire da ngay jaar normal nangam nangam ñëw yónnee ko seen i copain ñoom it ñu yaakaar ne y' a pas de risque mais Mamadou Awa traversé le Sénégal jusqu'en Espagne à à à pirogue mais barki Demba Ndiaye dégg ñu ne Papito Kara seddaay bee ko rey. waaw c'est donc y a des am na bu ñu jógee ci ci géej dañuy neer. Hmm. am na nit ñëpp bokkuñu. organisme ni ñu koy supporter ni ñu koy supporter. Hmm. donc. mais malgré ça ñiy dem ce qu'on mooy que daal désespoir ñàkk xëy am na sax ñu dem. ba naan la situation politique mooy pousser ñenn ñi. non ñuy gàddaay. mais Mamour ne bàyyi nañ na ñi nga na joxoon jotoon nañu ay financement ci yenn projets yu bëri commencé mm-hmm. liggéey ko fi ngi yaakaar bëgg xaalis bu gaaw mm-hmm. cest à mu do aw ma je me bi may doog a pare sama formation supérieure bac plus en commerce international. dama jëloon sama CV def ko sama sac j'ai tourné dans les rues de Dakar fu ma gis am yaakaar dugg fa déposé ñu yàgg am yenn boîte yu ma yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg exploité da ngay ñëw ñu def la position stagiaire pendant un an ça, deux ans liggéey bi yaa koy gàddu mm-hmm, mm-hmm. ça c'est vrai ba ni ma duggee fonction publique ndaw dafa war a am jaar-jaar gis nga xale yi dañoo yaakaar ci sax mm-hmm. da lay forger et tax ba ëllëg boo amee alal di nga xam ni nga koy utiliser doo ko yàq ah.